seen mbokkum taalibe Abdul bu Bousso Mokhtar may wax nag ci turu daairatu muxaddamatul xidma mu mel ne barki démb rek am na kenn ci ñuy xëccoo réew mi ku fi ñëw muy Ousmane sonk bi mu ñëwee julli si na ajjuma siyaara na barabu Cheikhul Khadim génn na dem mu mel ne ay wax yu bari daf ciy juddoo yoo xam ne Euh, kenn ku nekk ak nam koy commentaire waaye la am nag te mooy lay am dëgg-dëgg mooy noonu du duñu ay politiciens politique it ñoruñu nekkuñ ca barab ba it di politique di faral kenn ak di boddi kenn waxuma nag ne ci biir daayira Moukhaddamatoul ma amu ci ñu far béréb sàngam wala nangam ku génn dem ba ci sa biti ko nga far loola moom sunu yoon nekku ci waaye ci biir liggéey bi nag amul par parloo gu ñuy faral kenn kenn rek lañ koy faral foofa te mooy cheikhul xadim cheikh ahmad bamba radiallahu anhu moom rek lañu gis moom rek lañuy faral keneen kum mën a doon nag boo bàyyi ko ca àll ba ñëw ak koo mën a doon danañ la jox warma danañ la teral danañ la taxawu ba boo dee julli nga julli boo dee siyaara nga siyaara ba noppi génn dem loolu nag lañ ci jublu mooy jëmmi kër Sëñ kër ñépp la ku fi ñëw melaw Sëñ nga fi war a fekk waaye waroo faa fekk melaw Abdul Ahad Buso bii di waxe ak yéen wala melaw keneen ku bokk ci daayira bi loola na nit ba génn ba dem këram su koy mel mu mel ko waaye barab bee moom dafa am melawum laaj te melaw ku fan nekk di fa liggéey noonu nga war a mel taxawaay boobu nag xàmmeewuñ ci ki dëkk ci réew mi ak ki dëkkul ci réew mi mbokk mi duggal ci paasu Moukhaddamatoul Khidma ci internet bi defe naa ne ñaari weer yu ñu génn façon gan gu nekk ñëw na ci jumaa ji façon gan gu nekk ñëw na ci jumaa ñii bàyyi ci biir réew mi di ay kuréel wala ay mbooloo ñii bàyyi ci biir réew mi nekk ay personnalité yoo xam ne mën naa am bokk nañ ci yoon yi mën naa am bokkuñ ci yoon wi waaye am na lu ñuy yëngu te war ñëw ci barab bi ñii nekk ay politiciens kenn ku nekk ci ñoom am na taxawaay boo xam ne daal daayira Muxaddamatul ma taxaw na ko ci sa wet ba nga ñëw ziyaara sàmmonteeg war ma ji nga xam ne moom nga war a sàmmonteel ci barab bi ba dem ci jàmm ak salaam dara bañ a xew noonu doxin woowu nag ci la dox ba agsi ci ñu fàttali nag tuuti. nituk politicien njëkku la ñëw tey ci ci jumaa ji nituk politicien njëkku la jullee foofu ci jumaa ji tey nituk politicien njëkku la dugg ci barab bi ziyaara tey ca jamono yi Abdoulaye Wade moo gën a jege mënees na koo tàmbalee sax ci jamono yi Abdou Diouf ndax 1994 lañ nekkoon ba nekk ni waaye jamono yi Abdoulaye Wade moo gën a jege te moo gën a leer ci ñu bari jamono joojee ba fii may toll di wax ak yow daayira muxaddamatul xidma sëriñ bi mu ngi leen di liggéeyloo ci dalal ay gan ak di leen toppatoo gan ñooñee ay politiciens daanañ ci bokk yu bokk ci ngóor gi ak yu bokkul ci ngóor gi ba ci njiitul réew mi la tàmbalee ci ab Wade ba ci Macky Sall mii fi nekk tey jii mu mel ne loola it mi ngi dox ba léegi ndax ba bërki démb rek bi ñuy ubbi euh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi accueil ba ci kilifa yooyu daayira Muxaddamatul Xidma ma nga ca woon te booba kañ doon dalal moo doonoon jiitu réew mi te nañu war a doxale ak moom itam ci worma ak saytu ko ba mu toog dal ba li muy dox mat mu delluwaat loo noona lañ ko doxale ñañ doon dalal itam ay ambassadeur nga ca yu fi teewal seenu réew nañu war a jëflanteeg ñoom ci ab yar ak teggin ak wan leen yarub murit ak teggini murit ak taxawaayu murit ci gan noonu la doxe ba ñu ñëw ba dem. nañ doon dalalit ay kilifa yi diine nga fa yu woon yu bàyyi ci yeneeni i ci réew mi ñoom it war jooju ak teggin yooyu lañ sàmmonteeg ñoom ba ñu ñëw ba dal ba dem keneen ku fiy ñëw nag. noonu la ñuy sàmmanteeg teggin yi ak warma ji ba nga ñëw ba dem su dee ci gan gii fi ñëwoon barki démb nag bi mu waree ñëw wax dëgg ñëwu nañu xam le ne day ñëw ñu wax leen it lay mën a nekk barab bi du stade du marché jumaa la xurumi seexul xadim la ku fii mën di ñëw da fi fiy indaale warma boo bañee ku ñu dégg ak indi fi war ma boo fi indee war ma daal war ma ji nga fi duggee moom nga fi génne boo fi indiwul war ma nag man nga fi indi ay jàppante mën nga fi indi ay coow ñu xam la ne su fekkee ci ñoom rek la aju benn war ma du fi xotti ko incha allahu lépp lu ñu leen wax danañu ko respecté ci loolu lañ leen waxee nan lañu ñu war a duggee ci jumaa ji ci niñ war a sàmmonteeg teggee ñu bëgguñu ñu fiy kappas kappase ak i dàll ñu nangu bëgguñu ñuy rong mbooloo di ko indi ci biir jumaa ji ñuy yooxoo ko coow ñu nangu dañoo bëgg kan gi ñëwit bu accès na ànd ak dal dem julli siyaara génn dellu ci jàmm ba fu muy coowee mu soowee ko fi waaye bu mu doon ci jumaa ji bu mu doon ci pénc mi bu mu doon ci li war jumaa ji ñu nangoon teg ñun ca loola ba nga xamante ne agsi na itam ndaw dafa taxaw ci bunt ba di ko xool bi mu wàccee otoom la mu njëkk def mooy ñami àndal la wax la geesu tàmbalee ca fañ tàmbalee woon muy ay garde ko arab ay ñi mu àndal ñëpp ne leen bu kenn ci ak ci yéen duggaale ay dallam ci barab bi bu kenn ci yéen itam àgg ñu ne la yemal fii wala toogal fii ngay werante wala nga di ci wax luñ la sant ci biir barab bi def ko ba génn loolu la leen njëkkee wax tàmbale ko ci moom ci boppam ba ñu egsee jumaa ji dañ ne leen fii ak nu ngeen mën a toll ñeenti nit lañ mën a may ñu dugg ci biir ñeenti nit ba mu egsee moom ci jëmmi boppam ñu wax ko ko def ne ñeent yi sax ëpp na ñun bu ñu amee ñett rek baax na man. sëñ Assane Mbacke sëñ Cheikh Thioro buñ mënee dugg rek baax na suñ ko mënut a dugg it fuñ ñu yem leen fa rek mën nañ faa yem loolu la wax li am solo rek mooy ginnaaw ñëw nañ ñu mën a julli rek dañ julli ci jàmm te dellu ci jàmm lool la wax loolu it la def daal di geesu ñoom àndaloon ñëpp ay gardu ko rek ay ñëpp ne leen yem leen fii te lu yàgg-yàgg fu luñ leen wax fuñ leen wax ngeen toogee fa da ngeen fa tooge bañ noppi bi mu ñëwee itam dugg ci biir juma dugg ci biir dafa toog dal julli ñaar rakkaan daal di toog fi mu toog na yot sëgg siggiwul ba taxawal ba julli ba sëlmal ba kilifa yi di nuyook sëriñ bi ñi àndoon ak mu sàkk ko nuyu sëriñ bi ñu ne ko ah loolu nag moom ñi ànd ak sëriñ bi lañ ciy waxal mu wax ñoom ñooñu ñoom may ko mu nuyoog sëriñ bi waxtaan ak moom sëriñ bi ñaanal ko sëriñ bi jóg jëm ci barab bi mu jóg ne dafa bëgg a ñu ne ko nag sëriñ bi dafa jëm ci biir barab bi te doo fi mën doo mën a nekk duggandoog sëriñ bi ci biir barab bi kon la ngay man su rekkante ne ziyaara gi da laa yitteel mooy nga xaar ba sëriñ bi génn nga door a waaye àndandoo gi moom day andi coow te day indi yuuxaloo ak yëf mu dal mu nangu ne ah loolu kay tax du ay teggin sëriñ bi di dugg ñuy àndandoo ak moom di duggale ci biir kon nañ toog ba sëriñ bi gi dugg ba génn ñu door a dugg ziyaara noona la def dem daaray kamin fekk ñuy xat mu mu toog ñu ñaan mu nuyoo ziyaara fa toog fa ba sëriñ bi génn ba génn lii biir jumaa ji ba dugg ci otoom ba départ mu doore génne foofa dugg ci barabu cheikhul xadim bi ziar bi muy dugg it waxoon ca ba muy dugg ci jumaa ja loolu la waxaat ñoom àndal yam leen fii taxaw li sëriñ bi santaane rek ñu def nañ ko def ñii ñu fekk luñ ñu wax nañ ko def yam leen fii ñoom àndaloon ñëpp taxaw mu dugg ziara génn dem yoonam bi mu génnee it mbooloo mi bëgg a coow moom moo génn taxaw wax ak ñoom ngir ñu sàmmonte war may barab bi waaw lii ngir yàlla yonent bi lan moo ci nekk ci koo xam ne daf ne day ñëw ma bëgg nag ñu ànd ak dal ànd xel mu rafet te xam ne muxaddamatul xidma tàmbalee wula recevoir gan gu mel ne moom ci tey jii ci fàttali jamono yi nga xam ne Ablaye Wade mi ngi fii te toll ci di tàggoo pression bu mel nii jóge woon na fu ne dal ci sunu kaw Macky Sall tey ñëw na fi yoon wu mel nii wii fi kii ñëw tey pression bu ne jógee na fu ne ci ne bu leen ko dalal ba mu dugg ci biir jumaa ji bu mu dugg fee bu mu dugg fee waaye nun loolu du suñu mbir kay fay bañ a dugg mooy ki ñàkk a teg génni jumaa wala mu ñàkk a sàmmanteeg war may barab bi bu boobaa kum mën a doon danañ ko téye waaye nag ki ñëw sàmmanteeg war ma ji sàmmanteeg euh, teg génni jumaa ji wax dëgg yàlla te di te ab jullit la ñu dégg ko mu tuddoo ak jullit danañ ko encadré mu julli siyaara dem noona lañ ko defee woon ak moom ci jamono jooje noona it lañ ko defee ak moom ci jamono yii mu fi ñëw di fi julli si noona it lañ koy defee ak yeneen kilifa yi fi ñëw ñëpp di fi jullee si te bokk ci ñoom am na ay jamono ñoom ñu bari ci ñoom ñi ci gannaaw àndandoo nañu ñëw fi booba ka jiite woon àndandoo boobu mën naa mat ay ñettaat wala yooyu mooy Khalifa Sall Khalifa Sall ko jiite woon ànd ak ay politiciens yu bari kere ba mu ñëwee booba sax entre parenthèses Barthélemy jaas mii ma nga ca woon ba mu agsee ne day dugg ci biir mihrab bi jullee fi dañoo taxaw gantu ne gan nga ku ñu jox war ma waaye nag ginnaaw nekkuloo ab jullit amuloo sañ-sañu dugg ci biir jumaa ji wax waaw waxtu wu ñu jullee kon toogal fii xaar leen ñoom ba ñu julli ba noppi mu ne day dugg ñu ne ko doo dugg ndax nekkuloo jullit jullit ñi ñooy dugg julli waaye yow doo julli dara jox nañ la war a may nag ak teraangay gan ju toll ni man ngaa toog fii ba ñu julli ba noppi ñu fekkaat def ngeen ànd génn dem bañ xaw caa jàppante waaye noona la mujj def toog ñoom ñu dugg julli génn dugg ci barabu Seexul Xadiim siyaara kenn ànd ak moom dem loolu am na fi euh, bu ngeen xoolee itam ci paasu muqaddamatul xidma jamono yi jàll mel na ne gan ñi bari nañ fi lool yoo xam ne ñi ngi jógee ci biir réew mi ak yoo xam ne ñi ngi jógee ci bitim réew waaye kenn ku ci nekk boo fi ñëwee traitement bii ñu traité mbokk mii fi ñëwoon te ne day wut réew mi di Sonko traitement boobu rek lañuy lay traité te mooy jox la war ma la euh, euh, cir bi nga xam ne yàlla jox na la ko wàccalee itam wàccuwaay bi nga xam ne yàlla jox na dégg naa am ñuy wax ne warul woon a dugg foofa ndax nangam ak nangam lëg nag loo ko bañ bañ nangul ko gudd nappam moom ci réew mi la dëkk yàlla jox na ko ab cër itam ci réew mi cër boobu doon te yilifagul réew mi nag joxuñu ko cërub ku yilif réew mi waaye jox nañ ko cërub ku am kilifa ku am cër ci réew mi jox nañ ko cërub ku am cër ci réew mi am cër ci nit ñi nit ñi am fuñ ko teg cër boobu nag faaw ñu jox ko ko ndax anzilun naasa manazilahum loolu nag tekkiwut ne dañ fay nekk di farfarloo ak moom ndax bu fekkonte ne dañ fay nekk di farfarloo ak nguur tey kon loolu nguur rek lañ koy defal su fi président ñëwee ñu defal ko ko bu fi keneen ñëwee ku bokkut ak président ñu xañ ko ko su fekkonte ne dañoo far ak ñi contre président ñi contre nguur kon ñi contre nguur rek lañ koy defal fu fi nguur ñëwee ñu dégg noog ñoom waaye nguur saa bu ngeen ñu déggee ak ñoom rek dafa fekk ne dañoo bëgg a jalgati war may barab bi walla ñu bëgg ñàkkee war ma sëriñ bi ñaar yooyu rek ci la dégg ak ñoom waaye bu loolu amut du ngeen ñu dégg ak ñoom te mel na ne gëj ngeen ne dégg sax donte sax dégg-dégg yi ci biti la ñuy dégg ñoom yéen ñooy bokk di ko déggandoo ci biti rek waaye li ci ëpp ñu ko daan dégg sax gëj nañ koo dégg. kon nag ñu xam ne taxawaayu xidma Muxaddamatul Xidma loolu rek la ku fi ñëw daal te am cër ñu war ma la war laa warmaal dees na la war warmaal dees na itam fexe ba li nga war a def te mooy boo waree julli nga julli boo waree ziyaara nga ziyaara nga def ko ci ak dal dellu jàmm dara bañ a yàqu taxawaay boobee rek moom la amaat tey jii ci. ki fi ñëwoon noonu itam lañ ko taxawoo maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di jégalu ci xaw gee guddal dafa fekk ne rek dañoo ñëw ngir leeral rek waaye ñëwuñu nag ngir tontu kenn ñëwuñu yit ngir daggasante kenn ñëwuñu yit ngir xul kenn dañoo ñëw ngir leeral rek baaxoo wuñ sax nag yu mel ni ñu di ci tontu lu baree baree bare bare dana fi jaar ci yu mel nii ñu ne ñu génn leen wax ci waaye ñun baaxoo wuñ jóg di tontonte ci ne nangam xew na ñii nay lañ ko gisee lu tax ngeen di ko gisee nee wala lu tax ñu di ko gisee naa loolu moom wax dëgg yàlla doonul baaxu mu Muxaddamatul Xidma la ñuy def daal dañ koy def te jublu ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa képp rek wutuñ ci bànneexu kenn wutuñ ci naqaru kenn lu dul mbégtem Seexul Xadiim ak mbégtem ki fi nekkal Seexul Xadiim loolu rek lay mooy taxawaay bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.